eh Pape Diakho eh. may leen may leen orateur bi bu sa bu heure mosaana toll jamono sa maam Balaye sa mbak Serigne Mbacke Maram Mama mi ci naawel Xaadim borom jumaa ji Mamaranta Sali Siin bu jamono yi ma saan toll sa maam rek kay wax waxal. Eh, eh eh eh yow toog. sa maam maama ma tax ñu sol mbase. maama ma tax takk ñu leen fas ngeen di daw Dakar Milan te kenn du fay. maama tax ñuy sol maamam ci dëgg bii moom tamit ci dëgg lay dox. ngeen baal ma. tey bis la boo xam ne mu ngi daje ak bis bu rëy. muy bis bu ñun ñi nekk ci salle bi. man soo ba léegi waxuma. quatre-vingt-quinze pour cent yi wala lu ko ëpp ay jullit. damay damay direct nit ñi dañuy soow. jël nañu lu rëy. heure bi waroon nañ dem jumaa. jox ñu ko lu rëy loolu ñu ñu jox rëy waayam dafa rëy rëy ba àgg foo xam ne ab jullit di ca témoin da caa def. ndax suñu borom dafa wax ne wala si na yàgg ci tuuratu loo dafa wax ne wala si na yàgg mu ne mu sanaa wala mu yàgg ci tee bi arbahati sohada jawsatan wala mais micro yi ñu tax foorul fee ma jàpp ne yéen tey de yéen a laaj ngeen war a dogal li ngeen di dogal suñu borom am lu ci wax ndax nit suñu ko jiiñee njaalo muy bio dafa wax ne dafa wax nit yoo ne kenn ku ci nekk day nekk ab jullit bu wér nekk góor ndeysaan aji mbergaan sonn waaw ma ne bi li koy li tax mu jeex soreetul bàyyi leen ko mu wax li muy wax ndax képp ku nekk homme politique wala femme politique war nga nangu déglu lu la naqat ak lu la neex

bu boobaa ci yow ba dana mën a nekk lu wér cay day des day am ay ndax sàrt yi dañu wax ne su ñëwee foofa ñoom dañoo war a ñëw tiim mbir ma gis te bu ñu ko tiimee yow rek ci tiim leen ñoom ñaar waaye dañu ko war a gis mu mel ni comme ni tusngal di duggee ci li nga xamante ne moom la ñuy dugal tusngal loolu mooy suñu borom wax. ëpp na. alxuraan la. donc tey fii. boobu ëpp na loo xamante ne nii yéen a fii. Fatou Diouf eh. bëgg jàllale loo xam ne ëllëg ngeen jàppale seen borom seen borom dana leen balaa. waaw président Abdou Mbow. dinaa la xëpp nag. tuuma juree yi nga xam ne ay nit dañ ko jël indil leen ko yéen. Eh. yéen bëgg cee atteewu muy jàllale. yow man fi am suñu borom dana leen ko laaj ndax suñu borom nee na. yata xam ne. seedewuñ fi dara loo seede ngay laaj ñu seedewuñ dara dañuy bàyyi si suuf si liggéeyam da ngay en direct damaa bëgg dugg teg ci seen li muy wax defuñu rey nit ku rey nit waaye juróom-ñaar mooy nit ku tuur nit ku jaamu te yéen lii su ngeen ko fàttee mooy wane jiiñ ngeen ko su ngeen ko wootee rek mooy wane ni jiiñ ngeen ci yàlla da ngeen bokk ci ñi nga xam de jigéen ak góor de du affaire de jigéen góor bu kenn déplacé débat bi débat bi jot a déplacé de du affaire de jigéen góor fii ñëpp a nekk suuf ñëpp a nekk suuf si du jigéen a nekk am na ku ma menacé sànq ci internet bi nee na buñ paree ci Sonko man la ñuy lever sama immunité parlementaire maa ngi koy gis ci commentaire yi na doon suba ci ngoon tàkku tàkkusaan am na ku ma menacé nee na bu subaa man la ñuy commencé monsieur le ministre na doon suba na doon suba nañ ko lever suba. kasoo ma gënal néeg ba sax man ndax dépense wàcc ma li ngeen di fàtteeka lëj la

yow sëñ bi noppi rek Mbàkke bañ pare. ci aaya ñaar fukk ak ñett ci sóoratu Nuur wa dunya wala bugaan wala bugaan ngay mu réew mi. am na si si entreprise. la suñu wax ne ëllëg am na ñoo xam ne bugal yu teg mooy ñi nga xamante ne. jullit boo xam ne mosuñ koo xamee ci loolu tey jii yéen ngeen ñëw yéen tey yéen ngeen bëgg a ñëw atteewu ci loo xam ne xamu leen ko dara bëgg a yëkkati ci biir ndax sax xamu leen ko yéen xamu leen ko ndax yéen ci seen bopp ma ne c'est pas bon c'est pas bon am nañu jur ay doom ñuy jur di wasi ñuy ngeen te seen ko te néew na te ñu koy wasi naa ça c'est pas bon non monsieur le tey jii yéen ngeen war a taxaw tey dëggam am na wala amul léegi ngeen di def seen daraja yii ngeen di wane ak di puukare wu yéen ñëpp jël seen doole ba ko teg ci maanaam nit ku amul doole ndax ko xam ne amul doole ngir loo xamante ne dara léegi leen waaye ngeen fàttaliku ne suñu borom moo wax. ndeysaan ñoom ñëpp ay xaritam lañu woon di ko laaj ay numéro téléphone. def ko fan te teeg génn ci sama yoon waxuma la na nga génn sama yoon tout tranquillement xam nga sama jikko rek dama jóg léegi ñoom ñi ñëpp jànq ji ku nekk di ko laaj numéro téléphone am yaakaar ci ëllëgam ak futur am tey ngeen toog fii e du man maam Diarra ñun yaakaar nañ ci ëllëgam kay moo yaakaar ëllëgam pour mu dugal ko. man xam naa li xewoon ci couloir yi man xam naa li xewoon ci couloir yi man mi may ndayu Ousmane Sonko ci dëkk bi xam naa ko. lu jalgati yelleef am lan ah mais ban ci ñoom. waaye nag lu ne loolu ñu koy ndax damay faral di wax ni. moo taxawal bopp. waaw Abdou Aziz Daane wax waxoon na suñu président Abdou Aziz Ndaw def ko. mais nag su ñu demee nii waaye yéen ñëpp dafa doon mel ko doon leen wax. kon ñun lépp nii am nañ ci ndaw lii ñu leen jox lii ñu leen jox lii lii ñu leen jox léegi nañu ko jël jël ko sànni ko ci àll ba bañ koo voté parce que bañ koo voté mooy lu gën ku ko voté ku nekk voté na lu ko léeru te wala bu jàkkaarloo borom dafa laaj ndax lii leen laaj dafa rëy te mënu leen a matale sëriñ bi daa am responsabilité ba ñii di démission mu toog asuma responsabilité dafa ay tëdd ko matale responsabilité dafa ah, am yàlla asuma responsabilité boo matul dama lay directé bañ la direct waaye man namuma tëjoo. yàlla amuma direct man ma xaar man ma ne moom dafa nekk hors sujet. du rapport baa ngi nii da nga bëgg. da nga bëgg rapport. ay lii mbaa jàmm la waaye yow kii moom lan la. c'est pas possible. ndax conférence des présidents bi ngeen jëlee ne 48 heures am na ku jóg ne règlement bi may nañu pour mën koo def 24 heures waaw lu jar taw may daal loolu mooy wane ak sa war. nga bëgg a ñibbi kaw la. Dakar boo doon la faam boo doon yóbbu boo koy def doo ñibbi. ne nañ amal plénière. dañuy boole dañuy boole dañuy boole dañuy boole dañuy boole dañuy boole boo xamante ne du ñu xalaat. loolu ñu faam wax ñu yóbbu looy def Dakar ñibbi kaw la. dama nam Cheikh Issa dama bëgg a dem Kaolack liir bi Cheikh Issa moom laa bëgg liir bi laa bëgg gis Cheikh Issa. xam nga nag yow da ngay génne waaw après sa bureau lañ jëm yow ñooñu mën a ñëw la bu ko ñëw di dégg. président Macky Sall nee na nangam rek ñu daal di bëgg a amal. Cheikh Issa lañ nam ba dañ bëgg a dem Kaolack. loolu nag jàpp naa ne li leen di fay. li ma leen di yàlla waxaat mooy. li ma leen di waxaat mooy wane bu baax ngeen koy def. ñi ngay dem Kaolack lañ bëgg ngay wax. gore am na yoo xam ne sax xam naa ne la waral ñoom ñu def la waral ñoom ñu def xam naa ne loolu ñu ngi dugg moo waral ñoom ñu def. Ah, musli ndax xam nañ ne lii ku ko si borom dana la ko laaj ndax témoin nga te témoin nga ci loo ne te kenn ku nekk ëllëg da nga jàppaanoo sa borom ba ne yow